yëngalaat xel yi fàttali nit ñi xam nañ ne xam ngeen ko ne am na fi feebar yoo xam ne doy na waar ñu ni dañ leen a sàggane moo tax ci commencement bi ma ne kan moo sàgganee mbir mi ñun la wala état la wala ñi nga xam ne ñoo ñu war a dimbali ci yenn feebar yi ñoom ñoo ko sàggane waaye sàggan gi yëpp comme ci mënti doon bu ñu laxasaayoo rek takkuwaat mën nañu ko puus ba sàggan gi dañ fi ñu fexe waaye li am solo ba am solo mooy. am na feebar yu ñu tuddee eh, maladie négligée ñun ñu tànn Sénégal tànn ci fukk ak ñeent fukk ak ñeent yooyu nag la ñu bëgg nit ñi xam ko xàmmee ko ràññee ko suñ ko xàmmee xàmmee ko ràññee ko ñu mën a nag ànd ci xeex bi ni ñuy àndee ci xeex bi mooy dañuy jiital acteur communautaire yi acteurs communautaires yi mu ngi noonu xam nañ leen bàjjenu gox yi relais communautaire imam yi curé euh, religieux yi dans la globalité mais leader d'opinion yi mu nekk de délégué de quartier chef de village leader d'opinion yëpp mën a nekk parmi les acteurs communautaires su ngeen ci jàppee yëf yi jëm kanam ndax bu ngeen di wax damay faral di wax ni damay faral di wax ni juróomi xutba juróomi minute ci xutba rek nga wax ko ci euh, maladie rek daanaka faj na problème mu 15 jours de sensibilisation parce que teewlu gi am ci xutba loo fa dugal mu mën a dugg si nopp comme aussi mees bu ñu koy def teew la ko fa nekk luñ ci dugal ci bopp yi day des ci bopp yi te lu baax loo dugal ci xel bu des ci xel foog naa ni danañ ko mën a jëfee te ku fa génn bu ko waxee ñami fekki mbir mi dana yaatu te loolu la ñuy bëgg ci communication ak sensibilisation ñu yokk ci leader commun euh, bàjjenu gox yi ak euh, relais communautaire yi ñoom ñi nga xam ne fu kenn dul dugg ñoom dañ fay dugg di fekkee waxtaan yëpp parce que nag wóolu nañ leen rawatina. ci lu bari ñu bari dañuy déyanteeg ñoom fu kenn newul te bu ngeen seetloo feebar yi am na ci feebar yoo xam ne dafa ànd ak kersa ba nit mënu koo jébaane kooku da ngay gis koo wóolu rek nga mën a déyanteeg moom wax ko sa soxla mu seet fan la la mën a orienté ñu faj la moo tax niveau communautaire bi dafa am solo dafa am solo encore une fois euh, le fidèle qui va se confesser auprès du curé ki xam ne day dem seeti imaam këram waxtaan ak moom fu kenn newul dana ko déy loo xamante ni imaam ci boppam li mu jëlee fii mën na ko cee dolli curé bi dolli ko ci ba feebaram faju ndax feebar yoo xamante ni day day xayu sa sutura wuññi sa sutura doo ko gaaw a jébaane te doo ko mën a jébaane kon ñu ëmb la gunge la rek mooy tax nga ànd ceeg lu la mën a faj te loolu il faut nga nag nga wóolu nit ki nooy wóolu nit ki nga xam ne kat kii su ma ko denkee sama secret mën na maa gunge ba secret bi faju aajo bi faju te kenn du ma xamal moo tax ñuy bëgg nag acteurs communautaires yi di dem di jege leen waxtaan ak ñoom ngir ñu mën a régler problème 14 ñee fukki feebar ak ñeent nag danañ ko gën a ràññee gën ko xam gën ko waxtaane waaye nee naa leen ni ñu ko mën a xàmmee ràññee ko mooy nañ dem ci école yi dem ci daara yi xamal ko xale yi waxtaan ak jàngalekat yi ñu xamal leen lan la fan la ñu mën a jaar xeex ko ñooñu bu ñu xamee bu ñu delloo ci kër yi dañuy xamalaate rek kon boog noonu la ñuy jàppante ba mbir mi law waaye ñu bëgg nag ñëpp dugal ci seen loxo ndax li indi ci feebar yi du dog du du kër docteur rek koy réglé parce que wax nañ ko léegi multisectoriel mooy ku ne am nga ci sa pàcc pàcc yooyu nag bu ñu ko boolee mooy tax feebar yi nekk waaye ku ne boo jëlee sa pàcc def ca dara xëy feebar yi jóg fi wax nañ fi feebaru xaj yi rage feebar boobu bu élite jàppale ba ñuy def éradication des chiens errants di def ay campagne tout le temps mën naa am xaj yi feebar dootuñu bari te loolu mooy prévention bi kon foofu la mbir mi nekk moo tax service d'hygiène doon wax léegi ne ñoom mën nañu am plan d'action waaye amuñu moyen donc yéen a leen war a jàppale ci moom te loolu dafa jaadu am na yoo xamante ne nag bu ñu ko tegee fii ñëpp waxtaanee ko mën nañu am solution kon ñu ngi dellu delluwaat rek di xalaat di yaakaar ne ñëpp danañ jàpp ci xeer ñun de bu ngeen demee bu ngeen àndeek ñun ñu dem bu ngeen àndutoog ñu nit danañ dem waaye xëy na danañ yàgg ci yoon wi waaye danañ yegg moo tax ñu bëgg nag ngeen ànd ñun ndax ñu gaaw a yegg ndax yegg bi moo gën ndax bu ñu yeggee ba yebbi dellu si waat jël leneen demaat ndax noonu la rek parce que liggéey bi moom du jeex mukk waaye dañ ci ànd di ko gàddu di ko yëkkati di demandoo ba fu ñu sonnee ñu taxaw keneen aw bi noonu lay demee waaye feeg nag gis danañ am fitu continuer lu mu dis dis àttan nañ ko lu mu metti metti jaaxaluñu ndax man nee naa leen ñaari mbir boolewuma ko ci sama liggéey mooy maanaam mënta ne ak du ma ca yegg xaw ma lu ma song daan lu ma song daan waaye day fekk ñu jàppale ma su ma gëstoo gis leen sama wet danaa sañ a def bu dee moyen la ñu wuti ko indi ko bu dee kàddu guy sori la mën nañoo yokk suñu kàddu gu ñu sori li ci des nag mooy seet ñoo xamante ni boo xawee loof tuuti nga wéeru ci ñoom ngeen jógaat dem te loolu mooy acteur communautaire yi mooy yéen ñi fi nekk ci salle bi yëpp mooy dynamique d' ensemble boobu bu ñu ko amee ñun mën nañoo jàpp lépp mën nañoo xeex lépp te bu ñu ko defee defaluñu ko suñu bopp Sénégalu ëllëg lañ koy defal ndax Sénégalu ëllëg waratul xam feebar yu demee nii feebar yu sew yi xaw waruñu ko xam les générations futures ci leneen lañu war a toll pour mën a développer Sénégal te am na loo xam ne ku nekk boo ci bàyyee sa waar rek. bu sa waar setee àll bi yëpp set ndax nag ñàkk setal sa waar booy waral ba tey buñ duggee ci àll bi di fa fekk ay benn benn benn benn yooyu nag la war a xeex mu jógee te suñ ci dugalee suñu loxo rek wax nañ ko léegi pax yi ñuy gas ci àll bi da ko fa bàyyi ndax damay wut suuf pour jaay ko kuy tabax mais yow mi nga xam ne yaa gas war nga am loo fay foofu pour que ñun ñiy xeex feebar bi ñu mën war a mën a indi pexe ba fexeex ko kon comité bi ñii bu bu taxawee war naa mën a yóotu foofu koppar bañ dugal ko ci xeer keneen koo xamante yi askan wi ñor na la war nga mën a yëkkati sa sa def ko ci te doonte sax woowuñu la moo tax lii régler problème yi mooy ñëpp dugal seen loxo soo bundoo dugal lépp suñu ko defee rek am njariñ mu jur njariñ te loolu foog naa ni ñi ñu ciy jiital mooy encore une fois élus territoriaux yi faaw ñu di leen tudd yéen ñi ñu fal faaw ñu leen di tudd ndax nee ñu maye kala neex waaye dénkaane koo wóolu ndax delloo baa tax kon faw ñu leen di tudd te loolu askan wi ngeen ko yore la kon bu ngeen ci jiitoo ànd ceeg lépp day yomb amul lu jafe amul lu jafe nit ñi dañuy wax xaalis amul waaye xaalis du mooy régler problème yi xam nga luy régler problème yi mooy capital humain nit ñu takku laxasaay fas yéene ànd ndax njariñu askan wi rek kese mu bañ a doon njariñu leneen wala keneen mais njariñu askan wi rek bis bu ñu àndee ci loolu rek lu ñu song daan te bu ñu songee ba daan jóg songaat beneen ndax yëf yi du jeex mukk kon teel a tàyyi amu fi laxasaay ànd dem fu sori moo ñu jëkk te loolu faaw ñu dugal ci loxo yëpp kon loolu la ñuy woo ñëpp di ci waxtaan ñëpp di xaabale leen rek feebar yi yëpp ba na fee jógee su ngeen di ko nangoo rek mu jógee fii tout de waaye bu ngeen bëggee mu des fii dina fi kon ne des day mën abadan waaye buñ ci jógee mu jógee fi leneen mën nañu ñu mën a song leneen ndax ñii ñëw ëllëg suñu doom yi ñëw ëllëg ñu mën leen a bàyyi Sénégal gu dal Sénégal gu amul benn jafe-jafe Sénégal goo xam ne leneen la ñuy yóotu boole ko pétrole bi ngir tabaxaat ko ngir yóotu jëm ci yeneen réew yi nga xamante ni toll nañu fa sori te lu mën a nekk la ndax ku iñaanee sa dono sa dee ñaaw nañu xam ne ñun ñoo war a defar Sénégal ëllëg ñoo leen war a baleel ba mu set bu ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu toog nañu fàtte suñu bopp ngir les génération futures te loolu bu ñu ko defee rek ñu ñëpp war nañu mën a ànd ci li gën a baax ànd ci li gën a rafet. docteur Kane Gaye Mbacke amoon mbégte euh, ñëw fii ci cees euh, euh, ci gouverneur nga xam ne moom moo jiitee ndaje bi pour waxtaan ak yéen ci wàllu malade yi nga xam ne dañ leen a soofantal ñu naan ko malade tropicale négligé wala sàggane mais lu ci mën a xew rek jàppaleen ne nekkul malade yoo xam ne dañ leen sàggane li ñu bëgg mooy nan la ñuy def ba ñun ñëpp ñu taxaw temm en tout cas lëkkaloo pour jëlee ko euh, feebar yooyu fii ci senegal te lu ci am solo mooy que dafa am euh, ci àddina bi yëpp ñaar fukk ak benn feebar yi nga xam ne moom lañ naan malade tropical négligé mais ci senegal ñun dañoo joxañ fukk ak ñeent ci fukk ak ñeent yooyu am na ci ñoo xam ne dañ leen di wax euh, malade tropical négligé à chimiothérapie préventive maanaam da ngay jël ay garab di ko jox askan bi pour jeexal feebar bi am na ci à côté tamit les maladie tropicales négligées à prise en charge au cas par cas maanaam da ngay dem fexe ba nga xam ne na ngay defee jóg na ci maanaam xam maladie bi mais aussi fexe ba ba ba faj ko ci loolu nag euh, dafa am benn projet projet bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee euh, accélérer l' élimination résiliente et durable de MTN au niveau de Sénégal mu nekk lu am solo parce que dafay jàppale dëkk yi ndax gis nañ ne ci ginnaaw Covid bi euh, financement bi jëm ci wàllum feebar yooyu dafa wàññeeku woon ñoom nag ñu nekk benn kuréel kuréel loo xam ne dañuy jàppale dëkk yi pour fexe leen jàppale leen ci ci xeex boobu dëkk yooyu nag euh, Burkina Faso ci la bokk Kenya ci la bokk Éthiopie ci la bokk Sud Soudan ak Sénégal mu nekk projet boo xam ne day jàppale dëkk yi pour wax euh, pour euh, dimbali leen ci nan la ñuy def pour que euh, suñu plan yooyu nga xam ne dañ koy tëral muy plan stratégique nga xam ne dañ ko war a def def ci dañ ci war a liggéey pour def ci ay intervention pour que jéggi jërë feebar yooyu mu ñu jàppale ñu ci loolu mais surtout ci wàllum plaidoyer maanaam ci layo bi ci wàllum engagement communautaire bi dafa am solo ci sensibilisation communication bi mais aussi nan la ñuy def ba nga xam ne nit ñi nga xam ne dañoo war a liggéey mooy euh, tàggat nit ñi ci wàllum feebar yooyu mais aussi fexe ba nga xam ne dinañ gën a euh, renforcer li ñu naan communication bi sensibilisation je pense que loolu lu am solo la te loolu pour ñu def ko il faut que euh, mu ñu am benn approche multisectorielle mais il faut que ñu lëkkaloo ak yeneen secteurs yi parce que xam nañ ne feebar yooyu li koy joxe nekkul ne ci secteur de la santé lay jógee maanaam mën a nekk problème ndox mi jafe-jafe ndox problème assainissement problème hygiène problème euh, en tout cas éducation moo tax bu ñu bëggee xeex feebar yooyu il faut que ñun ñu lëkkaloo moom nañ naan approche multisectorielle te CRD bi ñuy def nii tey lu am solo la parce que dañu toog ci gouverneur ci autour di gouverneur y tous les secteurs qui son la tous les en tout cas toutes les parties prenantes ñi ngi fii ci ci ndaje mi pour ñu waxtaan jëm ci feebar yooyu te la yaakaar naa lu lu am solo la euh, ñu ngi en tout cas remercier euh, gouverneur mais aussi euh, direction régionale de santé ak en tout cas ñu fi nekkoon ñëpp pour jàppale ñu ci xeex boobu te yaakaar naa ne cees du des ginnaaw ndax MTN yi ni mu dalee yeneen région yi ni mu nekkee ci yeneen région yi noonu la nekkee fii ci fii ci Thiès mais yaakaar naa ne ak projet bii nga xam ne en tout cas am nañ ko yaakaar naa dinañ ko fi dinañ ko fi euh, mën a jëlee ci loolu nag damay wax ne il faut que ñu am ay ressources maanaam fexe ba nga xam ne dinañ am suñu euh, koom pour mën a xeex feebar yooyu moo tax dañuy en tout cas euh, wax ni collectivité territoriale yi am nañ ci pàcc bu am solo bu am solo bu ñuy bu ñu bu ñuy joué mais aussi secteur privé bi parce que gis nañ ne ñoom am nañ wàll ci xeex bi damay jël exemple par exemple boo demee ci fi nga xam ne dañ fay créer ay carrières Euh, bàyyi fa ay ay ay ay ay ay dépression bu fekkee nawet bi ñëw na ndox mi euh, taa foofu xale yi dañuy dem di di sangu te loolu bu ñu deful nànk mën na indi jeexantal ci wàllum wér-gu-yaram moo tax responsabilité sociétale de l'entreprise boobu ñuy wax lu am solo la kon ñu ngi def benn plaidoyer pour que secteur privé gën ci dugal loxoom collectivité territoriale yi gën ci dugal seen loxo mais aussi communauté bi engagement communautaire mais du ñu bàyyi presse bi parce que yéen tamit euh, je pense que euh, am ngeen pàcc bu am solo bu ñuy war a jouer ci ci communication sensibilisation bi pour que nit ñi mën a comportement pour que feebar yi jeex bi ba ba faaw OMS euh, dafa jël ay stratégie maanaam nan la ñuy dafa dëkk dëkk yi ne leen nii ngeen di def pour jëli feebar yi ci stratégie yooyu euh, chimiothérapie ci la bokk maanaam xeex euh, campagne de masse yi ñuy def approche wan Health bi ñuy wax noonu ci la bokk mais aussi WOSH maanaam eau hygiène assainissement mais quand même xam nañ ne loolu nga xam ne jox nañu ko comme ay stratégie ñun bu ñu jógee ànd ceeg en tout cas euh, ñi nga xam ne moom laa tudd fii ñëpp yaakaar naa ne dinañ fi jëlee feebar yooyu. ci feebar yi tamit dama bëgg nga euh, euh, rappeler leen aussi ne fii ci ci ci ci direction régionale de Thiès bu ngeen xoolee Ngaana la naan lepp am ay temps bëri woon na fi trop trop trop parce que amoon na ay village de axe village de reclassement sociale tey jii Sénégal en tout cas fexe na ba nga xam ne am na benn loi boo nga xam ne moom moo fi abrogé village de reclassement euh, social yooyu ndax dañu bëgg bëggatuñu ñuy boddi ak joxoñ ñi nga xam ne dañu am feebaru ngaana kon vraiment euh, am na ay avancées yu am solo ci wàllum xeex boobu mais gën nañ bëgg aussi nit ñi gën a lawal seen euh, gën a baral seen seen xeex bi ci ci loolu te pour ci loolu tamit ñu ngi leen di wax ne yi en tout cas ñëpp am nañ ci rôle bu am solo ci wàllum sensibilisation bi kon feebar yooyu mi ngi fi mais quand même nañu def tout pour jëlee ko fi ba faaw.